ciy wax c'est parce que nous avons des partenaires bu ñuy wax quatrième pouvoir et aujourd'hui dans la stratégie de Macky Sall quatrième pouvoir boobu dafa nekk di ko museler et je disais à quelqu'un li xew li ñu fi rey ci nit ak nervi yi fi wàcc boo gisee véritablement la presse sénégalaise waxuñu ci parce que Macky Sall est en train d'atteindre ses objectifs par rapport à la presse mooy noppi loo leen mais c'est parce que presse boobu yegg nañu ci xoqatal ko donc ñu ngi leen di woo ci vendredi sans presse bi nga xam ne les associations yi yëngu ci wàllu presse yëpp woote nañu ko vendredi 23 na ñëpp taxaw dooleel presse bu Sénégal ak fu waay mën a féete